la su ma waxee dëgg rek mënu ma koo mënuma koo wax. nga doon ndaw tey jii sa morom yu bëri ñu leen di gis feneen yow nga bàyyi sa lépp ñëw toog ci bisu bàyyi laay bi lan moo waral. man si laa juddoo damaa judd fekk samay waajur nekk laa yéen waaw waaw barki bàyyi ah ñu topp diglay bàyyi laay rek bàyyi ay tereem ndax loolu ndamam la ci ñun ndam la aussi. bu ngoonee kon yaa ngi xuntu. baax booy off la foofa sax yàlla nañ ci incha allahu fi bari laa jóge waaw teel na ñoo ñëw nag waaw waaw xol bu sedd rek kontaan di dellu si yàlla yàlla ma si jàng léegi lan di dimbalee ñam toppatoo sa mbokk te loolu mooy àdduna yal na yàlla jàppale ba ñu xol ñu rafet kontaan nañ yal nañ ko fekk ay ati at kontaan nañ Seydina Limaamu li ñu sa yaakaar yal nañ ko yàlla defal yal nañ bokk texe ñun Muhammad sallallahu alayhi Wasallam. wassalam Malika. Malika nga jogé waaw ñëw wuy ci am waaw lan ngay yegg ci bisu tay bi. dama cee yegg lu bari ndax man borom beyti Serigne Mamour kok moy doomu moy sama borom kër. moy sa borom kër tay nga ñew téwé ci appel. ñew téwé ci appel tànk kay baax waaye mën na jéem a ci yar siyaar si. yaram bi sutante waaye terewul nga ñew téwé ci appel bi lan mo waral bobu bobu boobu mu. ma dembu dama xey ma duma dem appel ma tudd ba guddi sama xol amu ma yëg ci seyna limam mo xey su suba teel sa ngoon ndox daal di wër ma ñëw. Seydina Limaamu daal moo faj say jàngoro. moo ma faj moo ma faj. ça va bien. yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi ci jàmm. mais booy bisu tey bi euh, nga ñëw fii nga dëkk wala wala wala. man Ouest Foire laa dëkk. Ouest Foire. waaw laa yéen indi fi say mbokk tey boo ñëwee gis lii lan nga yëg. xol bu sedd guy rek. xol bu sedd guy li gën a yees lu samay njébbal si maam Baay Laay wallaay tey ah, naka nga gisee réew mi euh, ni muy doxee ak ak maam Baye Laye ak ñu mel ne moom njàngale yi ñu fi bàyyi woon euh, di ñaan yàlla li fi am ñaan yi ñu fas yéene ñaan tey mu dolli jàmm ci réew bi yàlla yokk xéewal yi may ñu lu ñuy dundee ak paas ak paase lan la ñaan Baye Laye xew la tey ñun ñëpp ñu ñëw macha allah daal suñu xol yi dafa sedd fi ne ba xamuñu sax li ñuy wax. yéen fan ngeen jugee. ñun ñu ngi jugee ba Ouest Foire. Ouest Foire ngeen jugee ñëw fekkee si bisu Baye Laye. waaw loolu lañu def sama xarit bii mooy laayeen moo ma def laayeen dugal ma ci laayeen macha allah bu appel jotee muy ñuy togg di indi muy xotti ay brodé di ñu jox di ñu jox ay mbubb ñuy sol macha allah lépp ngir bés bi. bëgg Baye Laye soo ñëwee fii gis mbooloo mi ni mu mel appel bi woot lam ca woote woon wuy si bi lan nga yëg xol bu sedd guy rek na fi kenn mënta wax xol yëpp sedd na guy macha allah ñun ñëpp fi xol yi dafa sedd tey jii ak réew mi ni muy doxee jàpp nga ne nit ñi ñu ngi doxee dig lay Baye Laye ndax fi toll ni gis nañ ne réew mi jaxasoo na lool waaw sant rek di ñaan rek yàlla def jàmm def xéewal macha ci barka Baye Laye ah ñun ñëpp tey ku fi ñëw rek boo ñaanee boole nga ci loolu macha allah yal Sénégal am jàmm. bëgg a xam daayira Malika lañ fi ay ndaw bokk ci daayira. waaw rek lañ koy dundee ndax defe naa jamono toll na fu nga xamante ne ni ndaw yi buñ nekkul ci diina ji ñu si musiba ndax diina ji moom la ñu Seydina Limaamu alayhi salaam digla digal ñu dem di ci def lu baax di si wax lu baax defe naa tamit ñu ngi si te yàqaluñu dara. ñu ngi jàng ñi ciy liggéey ñu ngi liggéey te heure buñ bëggee dem ñu ngi dem. yéen seen daayira bi naka ngeen ko organiser. daayira bi dañ koo organiser ci mën naa ni du du metti parce que ay ndaw ñoo ko ay ay mag ñoo nekk ñun ndaw ñi ñu topp si ñu nekk nag ay mag ñu responsable ñoo xamantaan ni ñoo ngi teg ñu ñuy teg si yoon siraatal mustaqim du ñuy teg ci yoon bu nga xamantaan ne ni moom la Seydina Limaamu alayhi salaam bëgg. jamono yi nga xamante ni euh, appel bi ak seen non du yak dara parce que amna école ci bari nga xamantane ni dañuy may élève fête pour ñu dem ci appel bu ñu ñu mëna poursuivre seen jang lool amul ben impact ak jang xalé yi amul ben impact tam ci liggéey yi ñuy liggéey. en tant que jeune lan mo la neex ci jang lu gën a neex ci jangalam bay la lepp lepp mën naa ni lépp ma neex ci jangalam bay la alayhi salam surtout nak baatu la ilaha illallah bu nga xamantane ni mom lañu jox jërëjëf Moustapha. mën nañ xam tur bi tur bi tur. tur Maguette Laye. Maguette Laye yow fan nga jóge jóg ma ni fan nga bàyyee ko. Rufisque. Ah. Tëngéej Tëngéej. yow da ngaa bokk ci ci. déedéet déedéet daayira rek laa bokk. ah daayira nga bokk daayira ba. daayira Tëngéej. yow tey jii lan ngay yëg boo boo ñëwee teewee lu mel. Oh, ma ne tey jii lan ngay yëg ci bisu tey bi boo teewee lu mel nii. ah xanaa kontaan rek bëgg si maam Seydi. nga bàyyi sa kër ñëw tey jii est ce que loolu amul lu yàq dara ci sa diggante sa soxna. Eh, waaye laay yoon nen ni yaay bokk si délégation Layeen bu Italie tey jii Layeen.

ki ko jiite foofu mooy Fodé Diagne ki jiite délégation bi mi ngi tudd Baye Mandione Mbaye ñëw nañu ak nombre bu bari ku baax muy sëñ Mor Laay mu làqu yàlla na ko yàlla xare àjjana tey nag kóllëre boobu laay kon ne ànd ak doomam Ablaye Thiaw Laay nga xam ne tey moom mooy xalifaam ci këram ma ñëw ànd ak moom message bu may lancé mooy nanu bàyyi kilifa diine yu ci internet yi xale yi nanu yem te xam ni Sénégal kilifa diine yi ñoo yor fii boo gisee dëkk yëpp mu ngi mu ngi am problème deful dara kon kilifa diine yi ñoo ñaan lu am ay tremblements rek yëpp na fi am mais nit ñu baax ñoo ne xale yi nanu delloo seen xel te jaamu yàlla te baalante ak def lu wax lu te dellu suñu borom ndax suñu borom rek kay allahumma salli ala sayyidina wa sallam waaw. sëñ bi na nga def. ñu ngi sant yàlla xam ndax mën tur bi ak fan nga bàyyeekoo. maa ngi tudd Libaas Laay maa ngi bàyyeekoo Pikine ginnaaw raay. Pikine ginnaaw raay euh, sëñ bi ndax déglu nga li di discours porte parole bi. waaw déglu naa ko xam nga seen laay moom ku ne xam na ko ci dëgg rek lay dox ci dëgg rek lay dox te ku ko xam-xam ne lu defar diina ji lu defar àddina ci boppam lay wax waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ci moom. lan nga lan nga lan nga jàpp gën a jàpp ci ci ci discours yàlla dafa def nag bi muy def discours am dafa fekk ma nekk ca liggéey ba fële bi ma ñëwee toog laay doog a commencé déglu quoi lu ci bëri daf ma rëcc mais xam naa ne li muy wax lu am solo la parce que seen ku ko xam xam ne ci diina ji moom defar rek defar rek lu defar diine bi lu defar këru diina yëpp lu defar gouvernement bi lu defar àddina daal lay wax moom wax dëgg yàlla sant yàlla baax a baax a baax alhamdulilah asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakatuh. Baye mën nañoo xam tur bi ak. waa fii fii laa jógee Cambérène waa Ablaye Balaye laa tudd waaw. Baye Ablaye Balaye ñu ngi la fekk fii ci buntu Zawiya sayidina Issa Laye ñu gis ne ndaw ñi mag ñi mën ci tënk fidèle yëpp ñu ngi buuxante bi buntu bërëb lan moo waral bile buuxante. waa bés bi xam nga tey bésu fàttaliku la. Ehm, Seydina Limaamu sallallahu alayhi bi mu wootee léegi ça am nañ téeméeri ak ak ñeent fukk ak ñett waaw donc ku kuy ku ne fàttali ne ziar donc tey dañ ñëw pour feddali sunu sunu sunu ngëm si Baay Laay sallallahu alayhi wa ak yonent Yàlla Isaa mi nga xamante ni moo tëdd ci bërëb bi mën nañu xam kan la woon ci yoon bi ak lan la fi jot a def loo xamante ni si macha allah mën nga ñu ko fàttali. waaw il faut que ñu waa Sénégal xam ni fii li kër Baye Laye du tarixa Baye Laye dafa oote bi ma amee ñeent fukki at ne ajubo daay la yàlla moo ma yónni maa dellusiwaat maa doon yonte yàlla Muhammad démb sa màkk yàlla indiwaat ma ma am der bu ñuul ah si turu limaamul Mahdi Laay te ñëpp xamoon ne alxor addis yi ne woon yont yàlla Isaa dina dellusi donc yooyu yàlla dogal Seydina Isa alayhi salaam yontu yàlla Isa moom moo del si ànd ak yontu yàlla Muhammadu Rasulullah ñoo ngi invité Sénégalais yëpp pour ñu gëstu mbiru Baye Laye lii du caaxaan donc Seydina Isa mooy taawu maam Baye lay sallallahu alayhi wa waaw wuutu ko Baye lay dafa def mission vingt six ans euh, euh, daxwaam duré na vingt six ginnaaw bu fi jógee Seydina Isa alayhi salaam moo ko wuutu euh, moo ko wuutu pendant quarante ans et effectivement non la ko waxe c'est ne alayhi salam, Mahdi mat 40 ans donc passe mo waral euh, donc pas pass bi am donc kër gi du tarixa hein la sang bu tedd ba sallallahu alayhi C'est mo Sénégal yalla C'est Sénégal pour nous mu de euh, woté ñaareelu woote ah pour pour pour pour la diine. Issa mi nga xamante ni moom lañ dëppee Seydina Issa Laye moom mooy porte parole kër gi mu def ab waxtaan sànq euh, naka nga gi jàngatee waxtaan wi de. waa Seydina Issa de du porte parole kër gi non c'est le président de la euh, comité d'organisation appel mais porte parole kër gi euh, Seydi Mouhamadou Lamine la yi nga xam ni mu ginnaaw xalifa bi ki top si moom mooy imam Bachir moom Seydi Mohamed Lamine moo top moo top si imam Bachir nekk porte parole bi donc euh, euh, discours bi nak promotionnisation vraiment moo tax mënu <laughs> ma la seex lu bari mais xamna ni discours bi donc c'est na mom nak jekk wax de yalla unificateur la ah toujours fu mu waxee donc il parle au nom de l'islam ma xamné julli yeb dinañ ci gis meuna a gis seen bopp muy tijaan muy murit muy muy muy ñëpp daal waaw ala sayyidina Muhammad maa ngi tudd bàyyi ndax euh, bi nga xamante ni kii la di naa Issa discours bi mu doon def léegi waxtaanam wi tax mën nañ xam ne ndax dégg waaw Seydina Issa moom naka jekk toujours da doon wax luy boole nit ñi waaw naka jekk aussi da doon wax toujours jàjje nit ñi ci ñuy toppa yàlla te bañ a topp nit donc discours bi continuité la ci li mu daan wax. nan nga gisee tolluwaay jamono ak discours tayam bi. waaw xam nga jamono bi fi mu toll dafa lëj donc bu dee wax affaire léegi léegi lu koy lijjanti lay jéem wax mooy loolu mu nekkoon mooy continuité ba mu lay wax noonu euh, jamono ji nag ni mu mel nii ak ni mu wax moom euh, lu koy dindi ci li mu koy wax ci la bokk parce que lëj-lëj yi ci nit ñi la donc nit ñi bu ñu toppee li nga xam ni moom la yàlla bëgg yonent bi bëgg euh, day daj waaye nag di ñi ñoo topp li yàlla bëgg yonent bi bëgg ku nekk da nga topp sa bëgg-bëgg moom la Seydina Issa di expliquer nag mais nag il faut nga am matière à réflexion dëggantaan pour mën a comprendre affaire bi li muy wax waaw